big on yàlla julli ci yonte bi di sant ñaari waajur leen nuyu bu baax a baax yéen internautes yi mbégte ak contentement lay am saa ma jënoog yéen a noonu laay daal nuyu ñu topp ci réew mi ak bitim réew bàyyi ma kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu fekk la fa nga nekk joto sa wàcc waaye nag damay nuyu Assane Waalo ma feggool borom léegi fu ñun daal jukki leen di gën a fës Assane maa ngi lay nuyu Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu internet u TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour ca noonu nag dañ cee ànd ak suñu partenaire numéro 1 huile moom mi ñu indi gamme complet boobu ñu huile Jador vermicelle Jador macaroni Jador spaghetti Jador axar waalo tekki kenn du Aziz Aly Ndiaye waaye kenn du Okayaar moom mi ñu indi ndoxu sell boobu set ndoxu sportif ndoxu sportif yi baax ci xale baax ci magan ah. nee naa Okayaar mooy ndox bi ñuy aar noonu laa def ne saraax ci journal suñu làmb moom xëyee ci xëtam mu njëkk na comme xëyee Mbaye Guèye Fallaye Fodé Doussouba ak nga xam ne ne mooy Boy Bambara wala Falang kan lañ ci war a duppee arène nationale ba. dëgg la làmb moom moo xëy sampu laaj boobu nee ne euh, arène nationale bi nga xam ne ni amagul tur ba léegi est ce war nañ ko tuddee benn ancienne gloire foofu nag la ci jox kàddu ñi nga xam ne nii ñoom ñoo séq làmb ji. Mhm. jox na ci kàddu Malick Thiandoum Malick Thiandoum moom li mu gis nee ne euh, turu arène nationale bi euh, Fallaye Baldé lañ ko waroon a tuddee ndax li fi def ci histoire làmbam mhm. jox na ci également Mbaye Guèye la doon choisir bu doon ne day choisir joxe eh, tur ci arène nationale bi kii di Birame Ngingue mi nga xam ne ni moom mooy agent Modou moom lu mu wax nee ne Mbaye Guèye eh, moo serait le mieux eh, pour ñu attribuer non arène nationale boobu jox na ci également kaddu Ibou Ñoxo Ibou Ndiaye Ñoxo Baye mi nga xam ne nii moom mooy micro central bi ci làmb ji moom nee ne Falaye Balde mérité na trop jël tur boobu ki ci mujj nag moom mooy Abou Bakrin Samb kii benn commandant la wala benn gendarme à la retraite moom li wax nee ne arène nationale buñ ko jox kenn buñ ko tuddee kenn ni mu tudd rek ci arène nationale boobu doy na nan garder boobu. man moom du sama point de vue li wax. Mhm. man loolu la bu ñu ko waxee rek c'est complet tëj na lépp. ëmb na lépp ñëpp gis nañu maanaam national moom. exactement ku wax Mbaye Gueye wax Mbaye Gueye national Falaye national Falang national. Mhm. su ma sañoon daal arène nationale arène nationale lay nekk ca noonu nag MMA lañ jëm Elton averti super étoile ca la lay mbàkkee exactement Elton mi ngi avertir super étoile ni comme ni nga ko waxee moo moom moo tëgg euh, combat boobu te MMA lay am ci États-Unis mois doctobre octobre ko prévoir pour le moment Elton nag mi ngi fay prévoir bu baax mi ngi fay avertir euh, plutôt super étoile nee na combat bi du yomb ci moom combat bi dina ci def lépp pour gagner ko dina attaquer dina cogner dina gagner. ca nag lépp simple lañ jëm ki nga xam te ne nii mooy bilan ba ñu chiffré année bi nii saison bi 22 mm-hmm. combats 44,2 millions injectés ki nga xam ne nag mooy franc ak Jackson ñoo nekk patron bi loolu ci lit simple la ci biir région de Dakar bilan bi suñu làmb def ko nee vingt deux journée tëgg nañ ko ci saison bi génn diggante arène Adrien Senghor diggante gaal gi eh, ak Iba Mar Diop ñett yooyu daal nee na arène nationale exactement nee na foofu stade yooyu tëgg nañ fa 22 journée 22 jours euh, journée yooyu nag teg nañ fa mise u 44 millions 200 mille comme Muse comme ni nga ko waxee nee na Jax moom moo ëpp journée yu mu tëgg ci saison bi tëgg na 3 journée 3 journée yooyu mise na ci 8 millions 500 mille comme ni nga ko waxee également franc moo ëpp gala yu mu ci gagné ndax euh, gagné na ci 3 euh, journée euh, ba pare am ci xaalis bu toll ni ci 4 millions 100 mille. te noonu nag Thiaka Faye nag moom nga xam ne mooy ancien équipe nationale bu Sénégal la muy xam ne ci journal bi nee na kay ay naataangoom hmm. nekk ay moromam bokk na ci giri de Forza Elton ak Abdou Diouf oui Thiaka Faye nekk écurie kaay baax mais moom ci lutte simple lañ ko gën a xamee hmm. léegi nag li mu bëgg moom mooy dugg ci lutte avec frappe bi nee na daal euh, adversaire potentiel am yu nekk ci lutte avec frappe bi tudd na ci giri tudd na ci Forza tudd na ci Elton tudd na ci également Abdou Diouf waaye wax na également ci lutte avec euh, Fra bi nee ne ni mu meloon jamono yu njëkk léegi dafa mel ne day perdre euh, valeur am boobu wax na également ci lutte euh, olympique bi nee ne Adama Diatta bi nga xam ne nii moom moo doon représenté Sénégal représenté Sénégal ci jeux jeux yi nee na mënoon naa def lu ëpp li mu def bu doon am na préparation bu baax nee na également équipe nationale olympique dafa manqué dafa manqué ay coach yi nga xam ne dañoo am expérience loolu tax daal seen compétiteurs yi. yi wala seen athlètes yi mënuñu jël yenn performance yi mënuñu ko am. duñu dem fu sori. exactement. ca noonu nag commando junior pensionnaire de de de l'équipe pikin mbooloo <laughs> loolu nag la muy xam ne ci journal bi nee la leen manqué ñoom seen biir moom maanaam jàppale amuñu jàppale exactement nee na moom loolu lay jooytu nee na écrit pikin mbooloo ay euh, mbër yu am fulla am fayda ba pare am ambition ñu ngi fa waaye li leen manqué mooy que jàppale bi yeneen écrit yi am nee na ñoom dañ ko manqué wax na également que euh, depuis quelque temps euh, renouvelé nañ seen staff bi am nañ benn encadrement bu baax te ñooñu ñu ngi leen teg ci ay conditions yoo xam ne ni yaakaar na ne d'ici quelques jamono pikin mbooloo benn xamoon démb ñëwaat ci biir làmb ji ci noonu nag journal Les Arènes lañ jëm Les Arènes nag la muy xamle xëyee ko ci xëtam mu njëkk ginnaaw ba ñuy laam-laamee combat am ak Bombardier dina am ca mois de novembre kii di Balla Gaye numéro 2 nag dina ci stade de Paris daal di fay préparé waat bu baax exactement exactement loolu la journal Les Arènes révélé gannaaw ba seen combat bi ñu ko reporté moom ak Bombardier ñu préparé woon ko 31 décembre bi passé combat bi ñu reporté ko Balla Gaye nag naru toog Sénégal di xaar nee neen day demaat INSEPS loolu journal euh, Les Arènes nee na d'ici 15 jours dina dellu INSEPS te bu fa demee dina fa def un mois wala deux mois yoo xam ne nii da koy préparer combat bi nga xam ne nii moom moo war a dox ci digganteem ak Bombardier information boobu nag Mamadou Aly Ndiaye bi nga xam ne nii moom mooy coach moom moo ko révélé te wax na ci dolli na ci ne plus que combat bi di yàgg plus que muy gën a métti ci ci Bombardier ci Bombardier ah mm-hmm. xam nga xale bi day yokk cere doolu ñeex certainement te <laughs> doon nag naa turé depuis États-Unis nag li muy di xam le nag mu ne ñàkk ki nga xam ne mooy suñu papa Mbaye Guèye nekk na beneen perte pour moom ginnaaw ba mu perte papaam. exactement ginnaaw bi papaam tubaab bu jóor génnee àdduna. moom nee ne dese Mbaye bi daf ko euh, permettre mu pertaat beneen papa ndax nee ne Mbaye Guèye ak papaam tubaabu bu Dior dañu nekkoon ay xarit yu jege lool à chaque fois dañ doon euh, waxtaan euh, ba tax ne génn àdduna Mbaye Guèye bi daal moom génn àdduna deuxième papaam la ci gis nee na daal Fass perte na benn pilier boo xam ne ni amoon na importance trop ci ñoom ba léegi nag MMA lañ dem ak super étoile super étoile nag la muy xam ne combat mbay dox ci diggante moom Elton mhm. nee na laataa loolu nag mooy doon càmbar càmbaraat di jàng li nga xam ne mooy MMA ëpp na 11 mois exactement ginnaaw bi suñu làmb jëlee Elton les arènes moom ci biir euh, euh, super étoile la dem jëli super étoile également li fa wax comme ñu ngi États-Unis nee depuis ba mu fa demee ba léegi mi ngi jàng MMA nee ngi foofu ci New York di jàng MMA mais yaakaarul woon nañ ne premier combat am ab sénégalais lay dajal dafa yaakaaroon ne beneen athlète boo xam ne ni beneen nationalité lay dajal mais heureusement wala malheureusement euh, benn sénégalais lay dajal muy Elton mois de d'octobre lañ ko prévoir moo gét moo ko tëgg nee également bàyyiwul fii ci Sénégal nee bëgg na ñëwaat te bu ñëwee mën na joxe revanche wala mu jël revanche wala également mu tendre la perche euh, xale yi nga xam ne. ñoom ñoom ñoo jóg exactement. te doon boobu nag la yàq signature ba contre moo ngi lan la Assane waaw. exactement lii nii euh, Ndeye Mbacke ci MMA la naroon am guy gi ak euh, Eumeu Sène ci États-Unis malheureusement Eumeu Sène bi waa Moget demee seeti ko d'accord na jàkkaarloo ak guy gi mais malheureusement dafa gis ne ñaari contrat yu mu ak Gaston Mbengue war a daje Balla Gaye ak euh, Bombardier daf ko tënk de telle sorte que euh, mënul jël beneen euh, contrat di ko ci teg. kon maanaam moom daa log benn téye benn mënul woon jëlaat beneen mënul woon jëlaat beneen Modou kii en même temps Modou Lo également waa Moogate seeti nañ ko waaye Modou Lo daf leen wax instant yi moom disponible mois de décembre rek lay disponible te ñu fàttali ne moom combat Ama Baldé le 25 décembre lañ ko prévoir. incha allah ca noonu nag ginnaaw ba Kaolack nangaan daa def journée de sensibilisation def vaccination Kaolack nag benn Thiès benn dëkk ñaari gaa war nañ koo def waaye dañ ko reporté lan moo tax. exactement démb ci jeudi bi lañ ko prévoir ñoom CRG bu Thiès nga xam ne Abibou Diallo moom moo ko jiite dañu prévoir prévoir on def démb seen journée de vaccination mais malheureusement euh, euh, d'ici à quelques jours de l'événement euh, waa CNG dañ leen finalement dañ koy reporter ndax dafa am quelques problèmes yoo xam ne ni peut-être dajewul ba journée boobu mënuñ ko woon amal démb. ca noonu nag ba mu ñàkkee ëmm seen ak guy gi kii di moo génn daal di nay dóoraat. tegaat loxo ci poos kam taxawal na combat ba mooy fëgal ak ki xam ne mooy. dumbul dumbul exactement dumbulu bu nekkoon yoof euh, fëgal la nekkoon Lansar li tamit MMA la doon day mbàkke te ci États-Unis lay amee moo ngi dafa dajale pratiquement mbër yu bëri bëgg leen a yóbbu foofu si États-Unis tëggal leen ay combat MMA donc fëgal ak dumbulu taxawal na ko te ci MMA lay am d'ici mois d'octobre incha allah. moo ngi noonu dama koy béggee bu baax a baax moom Assane Wall loolu moo nekkoon li gën a fës xibaaru lamb lan ngay tàggatoo di la remercier bu baax a baax a baax di remercier également internetu Leewtoo TV yi ñuy topp à chaque fois di leen jox digg daje ci yeneenu jotaay incha allah

बेगान भयो डिगो